nit ki boo toogee ci sa biir kër jiite sa waa kër jullit mbooloo nga am loolu mooy li wér li wér moo di ne su fekkee ne jàkka boo fa jullee mën nga faa jële lor kon yow dugg nga ci maasiya mm-hmm. maanaam ci mooy yàlla ba waxee ne bu leen jëmale seen bopp foo xam ne mën na leen lor loolu mooy li wér te wër te wóor mhm. masaajid ah, yi fépp la hmm. sama kër gi maa ngi fi julli juróom di ko ànd ak sama ñooñ weeru koor wi man mii personnellement ak mu ne danaa teeroo weeru koor yi ñeen fukki fan woor ko gungee ko ñeen fukki fan dégg nga boo ko boolee muy téeméeri bés ak fukk yoo xam ne ma koy or ci weer wi. am na ñoo xam ne dañuy toog fañ toog ku leen neex rek ñu teg ko baat waaye kooku daf lay boole ci malaamatiye mooy wilaaya goo xam ne da koy jëlee ci waxi nit ñi mais li am importance. Hmm. <coughs> mooy su fekkee ne euh, tëj jumaa yi amutoon kon ba lañoo dégg kenn man la ñuy jëkk a dégg. kon ba la ñoo dégg kenn man la ñuy njëkk a dégg ndax xanaa bokk bokk naa ci aalul bayt te aalul bayt kenn man ta wax ta waxoo leen même limaamu Shaafi yu dafa ne fii ku mu sharafan and na man lam yusalli aleykum la salaata lahu hmm. ñun bu ñu fii def diina ji ba la ñoo dégg ku de sant Njaay wala ku sant Jóob man mii la ñu njëkk a dégg waaw il faut pas que aussi ay obscurantiste parce que jàng imam mokkaluñu alxuraan waaye lañ jàng ka su néew dégguñ ko jàng nañ ko mais comprendre uñ ko defe nga ne moos tey jii nguur gi dana fi def loo xam ne dafa jóyoog lislaam te dégguñu danañu dégg ba gannaaw suba ñun loolu tëj nañu ci tëjatuñu ci man lakk naa fi drapeau France kenn mosu koo def ñu bàyyi yooyu obscurantisme na tëdd fee yàlla moo ne laatul ko béy li comme il tëllu ko point loolu yàlla wax na ko koo wedd yow yaay fen ak koo mën a doon ah, nañ bàyyi loolu jërëjëf eh, Ahmed Khalifa eh, docteur Ndour mu dafa am lu mu la bëgg a laaj waaw moom sëñ bi wax nga ne ku teel a jàng alquran nga. moom la jàngee wax mu ne. moom nga jàngee wax. wallaahi waaye ba ngay jàng alquran aaya ji nga xam ne bu xare amee dañuy xaaj armée bi ñi taxaw di garde ñii di julli jàngale ko ci alquran. yaa waxoon léegi ci gannaaw ne bu fa dof neexee gàddu yéen wala yi nangam nangam fetel gàddu fetel jëlal sa war koo fetel wala bëgg koo fetel xare bi continue ñii di julli situation boobu alxuraan rek la bu mënta rek la lii dégg naa ko bépp dégg gannaaw kon na bépp laay bu nekk ci biir alxuraan situation bi situation bi réglé ma ñuy xare ñii di julli ñii di xare moo réglé xare situation bi ñii dem julli ji ñii dem toog alquran moo rek situation choléra choléra. corona corona. ni mu ko mooy mooy xaree gën a ñàng foofu lii parce que léegi dañooy wax ni su fekkee ni boo demee mu daal dañu xalaat ndax mën na la faa dal wala mënu la dal kooku ihtimal la mooy foog la xare bi nag mu amul foog. noonu yaa yi taxaw gàncax gi tamit faagaaga leen da ngeen jox lañ bëgg ñu ne la taxawal ngaana képp ngaana rek ngaana la ngaana saa lañ cinquante yi taxaw di xeex cinquante yi di julliwaale buñ paree ñi doon julli dem taxaw ña doon xeex dikk ki réglé loolu te loolu alxuraan ko réglé du yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam loolu aay la mu ngi ci alxuraan jarul ñu ñu ko wax. loolu danga caa bëgg ne fi ne dañoo ne ci xare nañ jullee waa donc boo ko boo buggee ne corona bi boo ko bëgg a dendalee xare dendul nag. xare ku ne ñaari seen réglé nañ ko ci yegg waaye dendul lii du xare. kii du xare lii mbas la. mbas mbas la xare xare la. la ma ne man xam nga lu leen wutale xare ñenn rek la. contexte xaru ma ne xare ñenn rek la. ma ne sang bi. contexte bi yàlla ci bi yàlla réglé nga ragal yàlla bul dem di. dama ni man boo buggee ko a li ngay wax yow ne nañ ci jàkka yi lu taxoon xam ne yow xare moo gën a ñàng te tëjuñ julli ngay tëj lu julli di yow ak ñu ni yow ci xalaat bi waaye dama ne julli ci jàkka ju ma bàyyi ma wax ko nga dégg julli ci jàkka julli ci jàkka man nga dem julli ci la dal man nga dem julli ji la dal waaye nag jëlaale sa matuwaay yi ba ñu wàll nga ko jël. docteur a ko ma tontu bi du werante. Ah. du daraja du maqaama du sang kon sa jàkk mooy sa kër. ko eh, rek la. jàkk ju njëkk ji mooy sa kër bala nga nga alxuraan jàng ko. te maa ngi koy wax àdduna bi ko dégg situation xare moo gën a ñàng te yàlla rek la na fa situation wu julli na ñii di julli. waaye bu gënee ñàng te bokku ñu àtte nag. waaye yow bu mënee ñàng bu mënee ñàng te bokku ñu àtte nag. mën na jàll yow li fi nga da fi nga xamee mooy bokku ñu àtte. da ngay dendale yu dendul xar xare ak mbas du benn. docteur docteur Babacar Babacar may ma tuuti Babacar may ma tuuti Ahmed Khalifa Babacar Babacar Babacar Ndour may ma tuuti. docteur Babacar Ndour maa ngi tuuti. ba mel na ni bu ma la déggee eh, yow fi nga mën dëppoo ak Ahmed Khalifa Niass aaye li aare xare bu ñëwee wane nga ne nit ñi jàmmaarloo ca front ba di xeex di rayante te tawut julli wàcc leen. nga ne loola buñ ko comparé ak li xew tey ci corona bi eh, soriwuñ benn la. la la ko walaabal fële moo walaabal fi waruñoo tëj jàkka yi. tey man question bi mu bëgg a laaj ndaw yow ndax ndax yow. ci xalaat xel de xel mi ko ci xab li nga xam ndax jàkka dañ fa wàllante feebar loolaa bëgg a laaj. dañ fa wàllante feebar wala duñ fa wàllante feebar. bu fekkee walaa bol na dañ fa wàllante feebar. Hmm. loolu bëgg naa ko xam bu fekkee walaa bol bëgg naa ko xam. jàkka. Hmm. ak marché. Hmm. bu fekkee ne ma marché de jàkka rek laa tudd. foofu laa ñëw. non marché moom marché moom marché moom du ma la ca laaj àtte marché xam nga ñu ma cay laaj àtte. jaaykat yi ak juute yi fay nekk mais yow jàkka laa lay laaj en tant que imam. jàkka bi laaj. waaw jàkka bu fekkee ne buñ dikkee maag yow sa suñ sàpp yi sa ma wàll la. naa la sori nag ma sori. mën naa laa sori nga sori ma duma la wàll te ñu ànd julli ci jàkka ji. ihtimaal nga joxe def. ma ihtimaal nga ma jox waxuma ihtimaal dama la laaj ndax jàkka. Hmm. danañ fa wàllante feebar man boobu laay laaj. man naa nekk mais bu ne ma ihtimaal. bi waxuma ihtimaal de dama ne mën naa nekk. da nga ne ma su fekkee mooy mi ihtimaal. dama la wax ni. Ah. waaw hmm. bu fekkee ne man dama am feebar boo xam ne bii sama yaram yi dafa am ay picc. Hmm. yaa ngi dégg. comme ngas masalan bi gën a rafet. nañ wax bi gën a rafet. parce que ci askan lañ nekk boo xam ne dañoo a respecté ñëpp waaye ngas moom ku ne xam na ni mooy feebar yooyu nga xam ne yàggul dara képp ko am 40 ans euh, wala 50 ans fekk na la fi wala mu fekk fi même bu fekkee fàtte ko. fekk déedéet nas am na plus de dix mille ans eh, eh nas am na plus de dix mille ans. dellul ci téere xam bi ma mujj a wax man. nas ak ñoom yu mat wala sama 60 ans li ci tegee bari. nas amul 40 ans yaa ko foog man ngas naa man mi wax ak yow. man man man mii di la wax ak yow am naa juróom-ñaar fukki at ak ñeent. am naa ñaar ak ngas naa bi am juróom-ñaari at doomi ndey yoo xam ne kii dafa dee tey kii dee ëllëg te ngasa leen rey. sama yaay ngas naa yaayam ngas naa yaayi kooku ngas na yow yaa ma laaj bu fekkee ne man man dama am bàyyi di wax non loolu nga wax bàyyi di ah, wax loo xam Ahmed xaaral ma ñëw Ahmed Khalifa Ahmed Khalifa kañ la tàmbali Ahmed Khalifa maa ngi ñëw Ahmed Ahmed Khalifa Ahmed Khalifa maa ngi ñëw ci question bi Ahmed may ma ma ñëw maa ngi ñëw Ahmed Ahmed Khalifa boo waxee ne jàng nga waxoo dëgg Ahmed Khalifa boo waxee ne yow li nga wax xamoo ko billaay la jaay bu dee wax nga ne ngas man wax ñeent fukki at la am kon waxuloo dëgg man dama la déglu coupé coupé ma coupé ma coupé ma kii jarta dégg ngas ñeent fukki at la ak ma fen nañ la fa indil ma lii yaa ma dàq fen saxurla yaa ma dàq fen wàccee sa bopp ñu wàccee la yéen docteur docteur Ndour docteur Ndour docteur Ndour dafa ndànk euh, dama bëggoon ñu ñu ñu delloo si débat bi delloo si débat bi mooy man dama la posé question question bi mooy na la ndax ci liñ jàng li nga jàng ndax feebar duñ ko wàllaate ci jàkk man naa nekk laa waaw mën naa nekk xam nga tax mën a nekk bu fekkee ne suñ jonjo moo wàll buñ demee jàkk ma jonjo yow kon wàll naa la ko mën naa nekk waaye buñ xamee ma yow ci ne waaw may ma ñëw may ma ñëw ci su ma loolu laalee wàll la ko waaye ngeen nañ su reewante jullit bu ma la wàll ji bi d'accord ma d'accord na nekk léegi comme comme d'accord nga ne mën na nekk docteur yi mel na ni jàpp xam nañ ne ñoom fu feebar mën a wàllaatee foofa nit ñi waruñ faa daje rassemblement dañ koy bañ ñu ne comme noonu la demee ñoom tudd njàkk yi de ñoom fépp foo xam ne nit ñi dañ fay dajee lañ wax rek mm-hmm. bañ waxee ne fépp foo xam ne nit ñi dañ fay dajee dañ nañ nañ fexe ba séparé la bu ñu fa dajee mm-hmm. buñ ko mënee tëj moo gën mais tudduñ benn place mm-hmm. léegi nag fu nit di dund ci àddina bi dafa am autorité yu fa nekk ñoo am sañ-sañu def nangam ak ñàkk koo def autorité yi ñooy laata laata ñu dugg ci luñ melit dafa am ay borom xam-xam ñi ñu tuddee olama wu diin ñu taxaw def seen jàngat génne seen fatwa ñu référé wu ca fatwa booba kon sën bu um ee ñoom ban bàkkaar la ñu non askan wi kenn amu ci bàkkaar ma wax mu leer hmm. képp ku julee sa kër imaam yi wax la ko wala gouvernement wax la ko boo jullee sa kër la nga doon am ci tiyaa boo ca jàkka ja moom la lay laay jox ndax illaa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman aaya la ci alquran kuñ forcé ba def loola loo gëmut soo ko defee la nga lañ lay fay noonu la leer waaye képp koo xam ne kii man gouvernement bi sukkuma leen ndax dañoo lenn ci askan wi ñi ñu wax na ay boromi xam-xam lañ wax na ay imam lañ respecté naa leen xam naa ne borom xam-xam lañ waaye nag dañoo war a diisoo jàngataat bi ñu jàngat bi bu baax a baax docteur yooyu nag boo daanee may man Ahmed Khalifa Ahmed Khalifa Ahmed Khalifa dama bëggoon a laaj ndax feebar danañ ko waalaate ci jàkka Ahmed waaw ndax feebar danañ ko wàllaate ci jàkka. waaw. ah. bañ a ko wàllaate ci jàkka. bu bu mbas amee feebar mbas daal. Hmm. dañ koy wa dañ dañ. waaw yow la ñuy tax ñu tëj kaaba gi. waaw bañ wàllante bi rek moo tax. Hmm. yow nag boo nee nañ tëj ah, kaaba gi nañ ko tëj. Hmm. waaye bu njëkk bu ñu jullee jàkk buñ ñu tëj jàkk ji yéen nga ñeen jàkk yi dañ cay dundee. dundee bu ñu jàkka ji bu ngeen dundee da ngeen xaar ba feebar bi jeex. Ahmed Khalifa jàkka nuñ ciy dunde bëgg a jiite rek toll na noonu. waaye loolu euh, imaam bàyyil ba euh, kii ba ba loolu pare xam nga euh, yëf yi xam nga itam wax dëgg yàlla mën te ñàkk a yëngal nit nga toog naan ngas boo yàggut boo léegi ñun fukki at la kon soo xel toll noonu waroo wax ak nit ñi. naa Ahmed Khalifa ñëwal ñëwal ñëwal ma ci de. ñëwal ma ci débat bi rek léegi léegi man. fi ne man daal li ma la li ma la wax lenn la. dama ne la hmm. dama ne la. dama la jàkka bu ñuy wax masaajid. Hmm. ma ne bu nekkee bu ñuy wax bu ñu waxee masaajid duul jàkka juñ tabax. Hmm. yonent bi sax jàkkaam ja duul tabaxuñ koon woon mbaar la woon. moo cosaan la. waaw kon nag li am importance. moo dine kenn ku ne boo jiitee sa waa ci jàkk nga julli. mbooloo mi daje ci mbedd am kenn ku leen jiite ci jàkk lañ julli hmm. loolu la jàkk du tabax bi rek te mën naa ñàkk doon tabax hmm. kon nag bu ñu tëj xelu nit ñi jàkk ji luñ fi tabax la mën na nekk polyvalent mën naa nekk leneen ci yeneen i bés ci yeneen i waxtu nekkul un endroit sacré comme église bi église bi kenn mënta jullee fu dul ci biir église ba waaye jàkk mën ngaa jullee ci mbedd mi mën ngaa jullee sa kër mën ngaa jullee feneen mhm. buñ jox jàkk loo xam ne yàlla joxut ko ko sacralité boobu yàlla joxut ko ko tey loolu mooy li nga xam ne mooy li am importance Ahmed xalifa léegi ñoo ngi ci minutes yu mujj ci suñ jotaay bi ma dama bëggoon léegi nga joxe say ndénkaane te tàggatoo ndax léegi li ñu des caay minute bareetul waaw man daal li nga xam ne moom laay wax waaw mooy àttee yàlla yi hmm. waxtu yàlla ci boppam moo tëral séeréer ak ci nit ñi moo tëral yeneeni àtte yoo xam ne dafay dox ci yeneen bindeefam yi feebar ci la bokk hmm. dégg nga waaw maa ngi dégg allo maa ngi dégg maa ngi dégg kon nag hmm. waa dama ki nit ki boo taxawee boo taxawee di julli gaynde jóob fa da do doog da ngay doog julli ga waaw waaw da ngay julli ga mhm. te seet noo fexee ba gaynde gi bañ laa fàdd mhm. loolu mooy lislaam waaw waaw waaye gaynde gu toll nii coronavirus di rey di rey bés bu ne lu dul jeex du xaaj mhm. nga di ko dékkoo ca jàkka ka ubbi jàkka ja dañ koo war a di <laughs> ndax mi ngi rey nit ñi mi ngi rey nit ñi mi ngi rey nit ñi ñuy dugg ca jàkka ya hmm. xanaa yow danga fàtte ne feebar bi benn nit moo ko indiwoon senegal benn nit hmm. benn tubaab moo fi wàcc te tey jii ñu ngi compter ay téeméeri téeméeri téeméeri nit waaw kon nag loolu mooy affaire bi loolu jarta naan waaw bu mu tere ñuy ubbi jàkka yi jàkka ji buñ ko war a ubbi dinañ ko ubbi